asalaamaaleykum mbokki jullit yi seen mbokkum jullit Serigne Moustapha si moo leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm waaye di ko sàkku ci yéen ah, tey nag dañ leen indiloon njariñ lu ama am solo loo xam ni kat ñoo ngi sàkku ci ñëpp ñu yaatal ko ba jullit ñëpp jot ci ndax jamono jii kat dañoo seetlu ni mucc daa jafe lool lii lor doomu aadama bi dafa bari te du ko yëkk ñaareel ba mooy wërsëg yi daa xat lool ba jaaxal ñépp nit ñi ndeysaan dañuy suturlawu rek waaye jamono metti na lool képp koo xam ne nag bëgg ngaa mucc sa wërsëg dolleeku loolu balu balu jamono metti metti metti doo ko yëg defal lii ma la wax te defee ko nii ma la ko waxee da ngay def sallallahu ala muhammadin moom gàtt na lool te yomb na danga koy def ñeenti altine ñeenti altine nga koy def nga def ko li mu kun fayakun te mooy 236 altine bu njëkk bi defal 236 sallallahu ala muhammadin nga toog ba altine dellu siwaat nga defaat ko nga toogaat ba altine dellu siwaat nga defaat ko altine bu dellu siwaatee nga defaat ko muy ñeenti altine soo noppee nga wut juróom-ñaari kiloy ceeb ak juróom-ñaari kiloy dugub nga xool ku ko aajowoo ku ko soxla nga sarax ko ko te yàlla rek tax lii de ku ko def yàlla dina la musal te dina dolli sa wërsëg dina la suturaal di sàkku nag képp ku ko jot nga jot lil ko jullit ñëpp yaatal ko euh, di ñaan yàlla yàlla na ko suñu borom barkeel képp ku ko def yàlla na nga ci gis lu kawe sa njort ci daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf